liggéey bi ñu nekk nag muy bâtiment bi nekk suñu ginnaaw mooy bâtiment bi nga xam ne Touba Ca Kanam da ko jëloon jaayante ko euh, def réalisation bi ci wàllu technique bi bâtiment bi euh, bokk na si bâtiment yi nga xam ne moom la ñuy wax majalis muy bâtiment boo xam ne R plus 3 la rez-de-chaussée plus trois niveau euh, ba niveau bu nekk am na salle de classe ñetti salle de classe am benn bureau am ay toilettes euh, ak euh, am euh, dégagement boo xam ne mooy tax circulation bi horizontale circulation verticale bi aussi am na cage d'escalier boo xam ne dafa àndaale ak box cage d'ascenseur te boo ko boolee lépp surface utile bi mu ngi toll ci deux mille deux cent cinquante mètres carrés répartis sur comme ni ma ko waxee sur quate niveaux bi ñu koy tàmbali tamit dañoo ñëw fekk. lépp lu nga xamante ni moom mooy tënk projet infrastructure rawatina bâtiment nga xam ne mu ngi tàmbali ci phase de conception bi nga xam ne architecte moo koy def euh, étude technique yi nga xam ne mi ngi commencé ci gros œuvre bi bureau d'étude moo koy def def euh, plan béton armé yi def étude géotechnique bi loolu yëpp dañoo fekk mu am euh, étude yoo xamante ni unité de coordination projet bi bi nga xam ne sëñ Mame Thierno moo ko sëñ Mame Thierno Mbacke mu sëñ moo ko jiite ñoom defoon nañ ko léegi nag Touba Kanam ba mu ñëwee laaj liggéey bi dañoo dajaloo ñu jox ñu plan yooyu ñu saytu plan yi daal di tàmbali liggéey bi léegi nag ñoom ci seen supervision la nekk ñu xaatim ak ñoom benn convention boo xam ne mooy wane ne lépp loo xamante ni ñoom définir nañ ko comme norme bu ñu war respecté ci université bi danañ ko respecté donc noonu lañ doxalee tàmbali ko recruter benn entreprise jël benn ingénieur teg ko fi muy saytu entreprise boobu mu nekk ñaari niveau de contrôle benn bi mooy contrôle interne bu ñu bu ñu entreprise bi defarlee ba ñu contrôler suñu bopp ba pare nag doit di woo bureau de contrôle jàll ci beneen phase bu loolu nag Euh, euh, di continuer di kon ba gros œuvre bi jeex gros bi mooy jëmmi bâtiment bi li nga xam ne euh, ciment la béton ak fer ba mu lépp daj ñu doog a tàmbali nag yeneen corps détail yi mooy carrelage électricité plomberie ak yëpp loo xamante ni bâtiment da koy laaj ba ci électricité bi am courant fort courant faible ba ci caméra de surveillance ak yëpp Kanam li muy livré li muy livré bâtiment bu complet la boo xam ne yemul sax ci jëmmi bâtiment bi kese mais koo wax clé en main dëgg dëgg dëgg na ko romb na sax clé en ndax Cléamé jëmmu infrastructure bi kese ngay joxe mais moom romb na euh, Cléamé parce que après équipé waat na ko bureau yi li fa war a nekk ak lépp te xam naa ne dana gunge aussi ci ci ci ci niñ koy yee gis nañ ko ba fii ni mu meloon yaa a quelques jours bi ñu ñëwee war a def inauguration bi gis ngeen niñ ko setalee nga xam ne daanaka def nañ aménagement bi donc liggéey bu mucc ayib la boo xam ne tegu na ci norme yi mu war a tegu te tamit Touba Ca Kanam xam naa lii daf ciy wane rek ne liggéey infrastructure amul bu ko të ndax ñi ci nekk nga xam ne ñoom ñooy jiite réalisation am nañ expérience bi am nañ rigueur bi waaye tamit si seen ginnaaw tamit am na collège d'ingénieur boo xam ne ñoom ñoo nekk seen ginnaaw. coût réalisation bi aussi 521 euh, euh, millions la 521 millions la te loolu tamit xëj na euh, rigueur buñ ci buñ ci def ak tamit ñu ko saytoo moom moo tax waaye bañ koy démarrer ku ne xamoon na ne ñu ngi ko estimé woon ci ay 800 millions waaye nag lépp loo xamante ni lu ñu waroon a jëggaani feneen la dañ ko jaay dañ ko jaayante suñu biir ndax. bëri na ñoo xam ne tey bu doon fay ñi ñuy nekk ci wàllu réalisation di leen fay salaire di leen di leen eh, jox leen yenn conditions yi ñuy nekkee yëpp kon mën na am sax mën na romb loolu waaye nag jaayante moo ci feeñ donc écart boobu am ci mooy wane ne rek loolu noonu renoncement bu am la si ñi nga xam ne ñoo ko doon ñoo ko doon taxaw ndax kenn ku ci nekk ku ne xam na ne structure bu mel nii boo ko naree taxawal li muy laaj ay conditions ak ni ngay nekkee mais ñoom dañoo jaay seen guddi seen bëccëg ak seen lépp donc def ko ci donc loolu daal mooy a jël jël ne dafa nekk si benn comme li wax benn entité la si biir corps boo xam eh, Euh, euh, bâtiment bi jëm bâtiment bi si moom lépp loo xamante ni prévoir nañ ko ci wàllu plan nga xam te loolu utilisation de projet bi ñoo ko defoon loolu moom Touba Kanam respecté na ko léegi nag tey bis ni ko tey jébbal nañ keg caabi yi suba comme liggéey sëñ bi ni muy mos si doxee boo xasee jébbale rek li ci des nag moom ñoom ñoo ko yor te ku ne gis na sëñ amul borde bi ni mu ko waxee ñoom xam nañ usage benn lañ ciy def ñu toll Touba Ca Kanam définir tul salle moo jàngee loolu seen liggéey la ñoom léegi li nga xam ne moo jëm ci wàllu sécurité nag bu dee sécurité interne bu bâtiment bi jël nañ ko